Gabon Production, Académie Médène TV, les meilleurs dans mboolem tu tànk yi nga xam ne ñoo ñëw sëriñ bi day wax ñu barkeelu ci dalandoo. baa. baa. سين سين ميم ميم ألف ألف لام لام لام هو est-ce que est-ce que alhamdulilah alhamdulilah Mbacke alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. Gabon Production Académie Médine TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.